ak parents d'élèves yi fi toog ak représentant école yi fi toog ak élèves yi nga xamante ne moom la ñu accompagner di nuyu waa ginnaaw raay yëpp bàyyiwuma kenn ndax fii ginnaaw raay rek moo fi nekk ndax ginnaaw raay moom.

ak kan moo ñàkk a soxla loolu aussi maa ngi ko mën a jaar ci enseignants yi kese ak directeur u école yi pour ñu détecteel ma parents yoo xamante ne feet gi xale yee ko moom soo leen gisee ma jël sama feet nag déje ko xale yi dama ci bëgg a jël ci ginnaaw raay noor ba mu daj cent xale cent maanaam yu jigéen ne man maa leen di suis bi ñuy jàng CI ba ñuy dem sem de loolu ci ci ba def ci différence ndax différence bi def man chance bi dama bëgg doomu ginnaaw raay yëpp am ko mooy ñu jàng ba jeexal seen jàng jàng jeexal cycle primaire jeexal cycle secondaire ba dem université génn ak ay diplôme pour changer esprit bi nga xamante ne moom la ñeneen ñi ci bite jàppee donc sans xale yooyu ma taamu ci 70 pour cent jeunes fii ñëpp nekk ay xale yu jigéen ndax xale yu jigéen yi doo gisee ma taamu ko mooy njàngum jigéen dafa gàtt tey aussi il faut ñu xiirtal xale yi ci école bi ñu dem jàngi donc boo leen gisee fête bi dafa xaw a ñoom Jibi fay dañ ma mere ak ñoom Moussa je passe directeur dama mere de ah dama mere fête bi dama ko féetale ci xale yi jigéen yu ndaw yi ñu jox leen ay saak ñu neexal seen xol bokk ak man anniversaire bi jox leen matériel didactique ñu ànd ak jàng ñu wax directeur ak maître yi ñu toppatoo leen ba dindil ma ci seeni école école bu ci nekk ay xale yu jigéen yoo xam ni kii ñëpp a néew doole sax commencé par man damaa doole mais ñi gën a gën a gën a néew ma xam leen boole leen ci liste boobu di leen toppatoo ci wàllum fourniture di leen suivre pas à pas ñu di leen jàngal su cours des vacances jotee ñu créé ko boole leen ci benn école recruter ay enseignants ñu di leen topp di leen topp di leen topp ba ñu def CM2 ba am seen entrée en sixième ak seen CP ñu dem ah jàngi ca école yu mag ya loolu nag bu ko defee gouvernement ak état doo gën a mën a diggoon loxoom ak parare loolu moo doon waxtaanu tey bi may ziar ñi fi teew ñëpp ci mag ci yaay ci parent di leen jaajëfal di wax ni fête bi du ay mag ay xale la man la ak xale yi su ma doon politique day gën a kumb mais bañ naa ko ba teguma musique amul dara dama bëgg rek di def suñu joyeux anniversaire